sëñ ñu bàyyi la nga jox sa tur ak sa sant. waaw man Aliou ñu ngi laa tudd waaw Géejawaay laa dëkk. ñu ñu jàpp ne barki Demba Ndiaye dañ fay jàpp ñaari borom tuur yi ñu nekk si biir jàkk ji grande mosquée. di mhm. def na ko su dul noonu ñu loo gisee loolu. waaw man de wax dëgg yàlla dégg naa ko nag mais awma ci lu ma leer dégg naa ko nag mais yàlla xam na ne bu fekkoon ne loo xamante ne nit moom da cee bët fekk leen ba yaakaar naa ne dina demee neeneen nu dul noonu. parce que waxuma la dara sax boo demee bay def sa ñaawteef xanaa war ngaa seet feneen foo xamante ne nii duñ fa jaamoo yàlla nga di ko fa def mais foo xamante ne nii yow dañ fay jaamoo yàlla nga di ko fa def yàlla xam ne ne man de laa wax man su ma ko fekkoon yaakaar naa leneen dina ci am moom parce que loolu dafa ñaaw ñoo xamante ni dañ naan ay ñaari borom tuur lañ loolu dafa ñaaw waaw. ñu laaj la nooy ñaaxee état bi ah ñoom de wax dëgg yàlla ñoom loolu bu leen neexoon suñ ko sañoon buñ sañoon bu leen neexee moom loolu jóge fi mais nag am na loo xamante ne nii maanaam dafa am ñoo xam ne bu nekkee ci biir te ay borom doole lañ <laughs> mënuñu ko xeex mu jóge fi dañuy wax ba sonn rek waaw waaye xam naa ne moom ñi nga xamante ne ñoom sariya la ñuy doxal xam naa ne ki kuñ ci njëkka teg bët nga koy def foo xam ne waru ko faa defee moom danga ci am li nga ci jëlee bis waaw ñun daal neexuñu déedéet. wax sa tur ak sa sant. waaw man maa ngi tudd Adama Seck. dëkk rue 1 angle 6 waaw man maay liggéey lii lii lay liggéey faire forcer waaw li ñuy wax mooy borom ñaari tur yi ñu jàppee fële grande mosquée du yoon du dëgg du yoon rafetul tant que góor jigéen yaa ngi fi feebar du fi jóg waxtaan wax dëgg si la dëgg neexul xam nga rek du wax lépp li fi xew xam nga état bi waxtaan wax dëgg ci la état bi lu bëri daf si war a jóg mooy lan maanaam askan bi moom mu jàppale xam nga li ma moom mu jàppale jeunesse bi jeunesse bi sonn nañu taay nañu waxtaan wax dëgg ci la xam nga li ma teewul ba léegi góor jigéen yi bëri nañ fi mënuñu wax lépp góor jigéen yow ki nga foogeewul fii nii senegal ñoom ñooy góor jigéen yi na ma yàlla jégal borom oto yu rafet yi ngay gis nii duñu wax lépp borom kër yu rafet yi ñuy gis nii duñu wax lépp fii xam nga li ma la fii waaye yow grand góor jigéen yi ñoo taaral town bi moo tax town bi metti moo tax feebar bi wàcc Sénégal tuuti na trop mais bu ñu xeeb Sénégal li fi yàlla def dëgg neexul li fi yàlla def bu buñ ko xeeb Sénégal li fi yàlla nekk bu buñ ko xeeb mais tant que góor jigéen yaa ngi fi Sénégal tolof tolof rek lay dëkkee. gis ñu ñëw ba si néegu yàlla di def loolu rafetul ponkol yi ñoo nekk si ginnaaw ponkol yi ñoo nekk si ginnaaw loolu noonu góor jigéen amul fitu ñëw ba grande mosquée di def yenn yi am na lu nekk si ginnaaw am na loo xam ne lu nekk si ginnaawam. góor jigéen it ponkal yi ñoo nekk si góor te góor jigéen yi man sama sama wax mooy sama wax mooy góor jigéen yi bu ñu si jógul dinañ yàq askan bi parce que bëri nañ fi trop ay booy yu ndaw booy yoo xamante ni dafa ñaaw sax wala ñun ay jullit lañu mais ñu jël Sénégal yi yàq ko nii lii rafetul quoi wax dëgg yàlla rafetul ñu ngi koy ñaawlu ñu ngi koy ñaawlu quoi ba fu ñaaw. sëñ sëñ bi ñu bàyyi la nga jox sa tur ak sa sant. waaw yéen da ngeen ñëw sama dëkk ñëw sama kër je m'appelle Bodi FM bi dégg man sëñ Ndiawar Thiam. xam xamee ci Balla Meyssa Balla Meyssa Thiam ah ñu xamee ma ci làmb ji boo di RFM mi nga yax boo di Sen TV ñu ngi koy tudd boo di Obama ñu ngi koy tudd a ah, boo di sans sans sans sans limite nag moo yéen a ma seet si tey ah yéen nag wax dëgg yaay seen télévision bi ah avant tout ma leen di ñaanal parce que li ngeen doon rafet déplacé ci réew mi ah dëgg-dëgg dox ci réew mi ah dox ki askanu réew mi ah dëgg-dëgg nag a ah, kooku nag monsieur président war na xam ni nag ah yéen a ngi def mbir ndax mbir man di weesu nag ah ñu ci ci territoire réew mi nga xam ni président moo koy doxal ak doxal képp ko xam ni maam yi mooy ci constitution bi ah dëgg-dëgg nag ñun nag lii sant nañ leen gërëm nañ leen ah di wax lii seen tànk tey. tey dañoo ñëw di waxtaan si borom ñaari tur yi ñu jot a jàpp barki Demba Ndiaye fii si jumaa Grand Mosquée. ah loolu nag dëgg-dëgg nag. ah loolu nag bokk ci réew mi nag. ah bu dëgg neexee man champion bi wax ak yéen. ah bokk ci réew mi. waaye nag monsieur président nag xanaa nag bu ko déggee nag ah dinañ si wa dinañ dinañ wasu àq ndax nag mooy suñu président ah man boo di ah boo di président boo di émergence ah maay wax ak yow président nag loolu bu ko déggee taxaw ci man boo di maay wax ak yow ah askan wi laa muñ ko déggee nañ ci taxaw périmètre bu ko déggee nañ si taxaw. ah dëgg-dëgg loolu nag dégg ma loolu maa ngi koy méttilu maa ngi koy méttilu ndax ñu nag dina doomu doomu doomu jullit lañu nag ndax di yaakaar ñu baax ñu fi ne ah ki nga xam ne sëñ Tuubaa li mu fi liggéey ah ci boppam maa yombe wiir wiir li wër wër yi tubé gomme ah dëgg-dëgg kooku nag li mu liggéey ci réew mi nag jàmm moo fi war a am maam alaaj ne sama lu mu fi liggéey ci réew mi borom parasol bi ah dëgg-dëgg réew mi nag jàmm moo ci war a am kon nag ñu rus ñu baax ñu fi ne ñooñu nag nañu abal ndax yéen nag dëgg-dëgg nag saa limi ni ngeen def na li ngeen def ni ah adduna bi nag moo ko président lii la bëgg li ngeen def la bëgg muy gis réew loo xam ne neexul ña ñu dox ko wax ko li jënd ko ah yéen nag dëgg-dëgg nag maa ngi wax seen directeur ah ma ma ma ma ma ma lancé message di wax seen directeur ah dëgg-dëgg nag ah lii ngeen def nag mooy liggéey bi waaye président ma Sall ah ah télévision sans limite li ñu def nii mooy dëgg ah man boo di nag dañ maa fekk sama réew su fan sama askan mooy li dana am si Angalmasa mooy fekk ma fii ci ci corniche bi fekk ma fii ci daaf ñu fekk si ma. di wax ci lu mel ni maa ngi ne góor jigéen ñi ah ñun ñaari tol yi nañu dimbali ngir yàlla président lii nangu ko nañu dimbali ngir yàlla askan nangu ko nañ dimbali ngir yàlla diini nangu ko ah dëgg-dëgg suñu diine nag mooy lakum diinukum waliya diin suñu diine nag mooy allahu akbaru sabaan jamono mooy sabaan suñu diine mooy jàmm yàlla liggéey mooy suñu diine loolu yem looy ñaax état bi état bi li koy gën ñaax mooy na jàppale ndaw yi ndaw yi ndaw yi man na jàppale ndaw yi ndaw yi sonn nañu trop trop trop trop trop sax état bi xoolal état bi xoolal ndaw yi mais état bi man noo métti na quoi yow xoolal état bi xoolal booy yi dee yoon keroog si gaal bi loolu rafetuñu dañoo sonn Sénégal dëggale la ni fii la ñu dëkk mën nañu liggéey fii tekkee fi mais si kaw nga jàppale ki nga xamante ni dafay liggéey tekkee fi mais yow sa buntu kër boo jëlee benn taabul teg ko ñu ne doo ko fi teg sa buntu kër boo jëlee benn banc teg ko di jaay ñu ne doo ko fi teg te yow fii nga dëkk imagine yow nga dëkk si dëkk bi mënoo liggéey si dëkk bi mais rafetul nga dëkk si dëkk bi mënoo liggéey si dëkk bi keneen jóge ba si àll ba ñëw di liggéeyoo sa dëkk mais du yoon mais nañuy jàppale gars yi fii loo defar ñu ne doo ko fi teg mais neexul quoi wax dëgg yàlla Macky Sall li mu koy ñaan mooy na jàppale askan bi askan bi sonn nañu te ñoo yor réew mi askan bi sonn nañ te ñoo yor dëkk bi sonn nañ trop waaye mais li du yoon lii ñaaw na trop li fi Senghor bàyyi woon moo fi nekkoon ba léegi mais ba kañ dina baax dina baax dina baax xala juddu na fi xala màgg na si xale si am na soxna loolu rek ngay dégg grand ba keñ ba keñ ba kañ sonn nañu taay nañu Macky Sall amal nañu àq dëgg neexul billaay amal nañu àq sonn nañu trop sax nañu jàppale nañ jàppale askan bi askan bi moo yore population bi askan bi moo yore dëkk nañ leen jàppale nañu jàppale askan bi na bàyyi lépp jàppale askan bi askan bi sonn nañu trop trop trop sax mais wala ba pare li ma gën a métti nga dëkk si dëkk bi mënoo liggéey si dëkk bi nga indi sa benn taabul teg di jaay nga ni doo ko fi teg wala nga indi sa meuble teg ñu ne doo ko fi teg mais du yoon mais li wala du yoon ñun ñu ngi nii ñun ñooy jaay fer forcé yi wala mais xoolal léegi nii fer forcé yëpp ñun ñoo koy jaay mais xoolal li jóge si àll ba moom moo ñu gënal xam nga li ma la li keneen liggéey moo gën li nga xamante ne moom la ñu liggéey ñu tànk loolu loolu mi ngi si ñun rek dañuy sonn li keneen liggéey moo gën ñun lu ñu liggéey du yoon balaa ngaa baax di dem feneen yow sa tànk ngay njëkkee baax balaa wala Macky Sall wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal ne moom na jàppale askan bi loolu rek laa koy ñaanal Macky Sall na gëstu askan bi parce que fu mu toog askan bi moom moo tax mu toog fa Macky Sall na gëstu askan bi askan bi sonn nañu taay na gëstu askan bi loolu rek laa leen ñaan billaay sant nañu bu baax. kon yéen soxna yi li ngeen def ak monsieur docteur li ngeen def sant nañ gërëm nañ leen président dañ koy ñaanal nag yéen wi yàlla na woyof ci moom te mu dimbali jaam yi man boo di maa ngi ci làmb ji di liggéey wàllu forgeron bi ak métal bi. waaye dafa am lu xew monsieur le Matar Ba ministre du maa ngi ngeen taxaw jàppale boodi jàppale askan gi jàppale réew mi président nag mënta jàppale ñëpp waaye ñi nga xam ne ñoom la jiital ñoom ñi ñu jiital ñooy na ah, diw ak diw ak diw ki am métier nag xam ko mën a jàppalee mooy ci nga xam ni mooy kayitam am agrément am am am am am am am am import export am yi nga xamante ni mooy wàllu métier bi mooy lan mooy ci xam-xamu métier bi bu ko amee ñu woo ko jàppale ko waaye ana man ana yow taxu jàppale réew président rek li mu def neex na ndax lu bon émergence def na émergence gaañaa ngi liggéey waaye ñi nga xam ne ñoom la ñi nga xam ñoo ci ginnaaw président du ko sonal président ngir yàlla bàyyi leen président bàyyi leen président mu dox doxam bàyyi leen président mu liggéey liggéeyam ndax liggéey la fi am. mën na du ma ŋàññi président du ma ŋàññi kenn li may ŋàññi mooy ñi nga xam ne dañoo war dimbali doomu aadama yi président yi leen ñu leen fa ñu fa xasal jaam yi nañu bàyyi li ñuy def président kii yàlla fal yàlla du fal du fal de yàlla du fal cuune de muy docteur bi muy nga xam ne moo ci gën a tuuti yàlla yëkkati sa looma tàng du ko fal du fal cuune de kon ñu ngi leen ñaanal yéen yàlla yàgg seen taxawaay di ñaanal président yàlla yëkkati yéeneem nga xam ne moom la jiital ci ci ci at mi mi ñu mu jiital ku mel ni Idrissa ak ñeneen na ñeneen ñeneen yàlla yàlla woyofal seen seen seen taxawaay yàlla woyofal seen taxawaay yàlla may leen jàmm may ñu salaam may wax président nag li ma koy lancé waat message ak ma ne fay sàll mooy boodi na ma jox liggéey jàppale ma jàppale sama askan wala ma taala wa barakaatu